mais Sénégal ngay dégg ki naan kii mooy sama baay en politique ki mooy sama papa en politique kii mooy sama et cetera tout ça moo tax booy xool Sénégal on a des on n'a de porteur de projet les porteurs de projet c'est les chefs de parti mmh. léegi keneen ku bëgg a ber sa langue soit ñu dàq la mmh. waaw parce que dañuy bañ nga am projet mmh. à côté ah, de sa qui a créé le parti je la politique ah, <laughs> donc <laughs> donc Sénégal loolu mooy suñu drame autrement dit boo demee AFP la personne la plus indiquée qui s'est engagée pour remplacer Moustapha Niass c'était Malick Gakou wala Matassi Diallo ñu dàq ko mm-hmm. boo demee OPS Tanor dem na alors Khalifa Sall se positionne donc ñu xeex ko mm-hmm. voilà Tanor a toujours préféré Serigne Mbaye Thiam à Khalifa Sall parce qu'il n'a pas parce, que en réalité Khalifa Sall bi muy nekk maire en 2009 gëmuñu ko woon et Khalifa est devenu maire à cause de Moustapha Niass mm-hmm. c'est les voix de Moustapha Niass qui ont pesé xalifa reste maire de Dakar. Hmm. sinon Tanor avait instruit Doudou Issa Niass ne leen dem leen maison des partis ngeen décider kan ngeen di tànn boobu cette réforme là n'est pas encore intervenue. ils ont voulu trahir Khalifa. parce que bañ koy tabb gëmuñu woon ne Khalifa mën na gagner Dakar. ok parce que y avait Pape Diop. Oui, premier sur la liste. mais hmm. troisième il y Karim Wade. Hmm. ak seen alal ak seen xaalis gëmuñu ko woon. ñu dem élection Khalifa la liste Benno Siggil Sénégal gagné. avec les voix de les autres. Moustapha Niasse yegee ne Tanor woo na Doudou Issa Niasse ne ko dem leen maison du parti ngeen choisir il a dit non non non a déjà choisi c' est Khalifa. Mhm. Khalifa ñëw marqué une rupture. il fait sa déclaration de patrimoine Tanor n' est pas d' parce que bu leen fàttali ne Khalifa moo njëkk def déclaration de patrimoine. Mhm. voilà après xalifa commencé dawal commencé. poser un programme un très bon programme. Euh, un euh, programme de gauche pas d'accord pourquoi. sur la parce que wala... pour pour Tanor une manière de se démarquer pour dire que xool leen man je suis clean. ah mm. d'accord tu as vu. Okay. donc a reproché même ses avocats même les avocats de Khalifa bi muy def déclare d'accord ñu ko yaa ngi def Sénégal loo xam ne kenn. musu fee am de. mais dafa jaadu parce que taxaw di wax sa alal lii laa am bokkul ci suñu culture. mais xalifa ne non dama yore gestion publique il faut ma wone li ma am. Mhm. d'ailleurs ils ont été surpris par sa richesse. <laughs> xam nga après bi mu waxee ne am naa lii ak lii ak lii man ak sama soxna lii ils ont été surpris par sa richesse mais tu as histoire Sénégal dañuy bañ ko ber langam dañuy bañ ko am ambition ñu xeex xalifa voilà fi mu mujj dans tous les partis c'est comme ça alors Mamadou Diouf et Momar Koumba Diop en 1996 avaient sorti un célèbre ouvrage qui où il y relatait le patrimonialisme de l'État Abdou Diouf dafa jëloon état bi accaparé ko def ko moomel patrimonialisme mooy nga jël affaire bi ne maa ko moom mm-hmm. la mm-hmm. c'est moi qui l'ai incarné ko incarné mais man maa ko moom sax patrimoine patrimonialisme patrimoine man maa ko moom moo dal Abdou Diouf bi Abdoulaye Wade ñëwee gis ngeen ni doon gérer nguur gi mm-hmm. ni moo ko moom moo topp Macky ba léegi donc on a ces difficultés là sur le plan structurel. sur le plan un problème de personne. ce n'est pas un problème de personne c'est une pro c'est un problème culturel. c'est un problème de management. et notre culture qui nous a façonné. à mhm. mettre en avant l'émotion man au lieu de la raison xel. moo tax parfois xale yi da ngay ñu ne la demoon sa xel de sa xol ngay demee. Mhm. et à chaque fois que dañuy demee xol on est dans l'émotion. à chaque fois que ñu jiital suñu xel. Mhm. on peut être dans la raison.